yow mi setan Wilan TV aboneel gaaw te nga activé cloche notification bi moy tax ngeen mën di jot suñu vidéo en temps réel Wilan TV la voix des sages. Wilan TV nag këf lu yàgg. Cheikh nee né Serigne Cheikh Niang nee euh bésam ba. bésam le 20 mai. le 20 mai la. day taxaw lu melni nii. mais momi tam day taxawal lu mel fan la. parcelle mais ca parcelle. unité fa jàkkaarloo. nee na unité 11. nee unité 11. fa jàkkaarloo. fa jàkkaarloo. photo photo. maa ko Abdou Aziz Dabakh. maa ngi bàyyi xel nag. nee maa ngi bàyyi xel nag. di leen bàyyiloo xel. maa ngi leen di bàyyiloo xel. ngeen bàyyi di wax alxajaab. nee ngeen bàyyi di wax alxajaab. la jëm. mais ci laa jëm. xam nga alaaji alaaji dafa dafa dafa teel a teel trop. mais alaaji moom dafa teel a teel trop. ma Abdou Aziz. alaaji Ibrahima am na. alaaji Ibrahima mi ngi nii am na. dem na Makka dem na Makka. alaaji fi dem Makka kenn xamul. alaaji fi dem Makka kenn xamul na mu toll. waaye alaaji Abdou. waaye alaaji Abdou. <laughs> aw saas. aw saas. Vallahi. Al sen. Sen. Böyleydi Selim, Selim Babakır. Böyleydi Selim Babakır. Loku Selim. Loku Selim. Ha? Ha? Selim Babakır okuduk. Böyleydi Selim Babakır. Senin Mesut'u okuduk. Senin Mesut'u okuduk. Senin Mesut'u okuduk. Senin Mesut'u okuduk. Senin Mesut'u okuduk. Nene alacak. Nene alacak. ها اوكي su fekkee naar bi latt mais su fekkee baatu naar bi daf latt nga ni maam Abdou nga ni maam Abdou maa ngi leen tiirlu attention maa ngi leen di attiré attention am na ñoo xam ne mais am na ñoo xam ne ay nitu yàlla lañu ay nitu yàlla lañu bu ñu déggee nga ni alaaj Abdou bu ñu déggee nga ni alaaj Abdou mere nañ bu yàgg mais dañ lay mere bu yàgg ah président Macky Sall mi alaaji la. mais président Macky Sall mi alaaji la. Eh, balaa nga ko tudd. waaye balaa ko tudd. fu nekk nga fu nekk ngay jaar. monsieur le président. son excellence. son excellence monsieur le président. jaar fu nekk rek. yow da nga mën ah. mais tabaarakallah. moom nag li mu amee. moom nag ni mu amee. ëpp na excellence. ëpp na excellence. dañ bay wax alaaja bi. nee nañ bàyyee wax alaaja am. nga ne maam. Abdou wala ñu wax maam Abdou. mu gën a yomb. ah yooyu dafa dafa dafa dafa woyof. ne yooyu dafa woyof. te bu ñu duñ la wax lu leen lu waral lool nag. te duñ la wax na lu waral loolu. déedéet mukk. yàlla bàyyi rek ku ñu gis nga ko def. mais kon gis nga di ko def. daan la ko tere. daan la ko tere. waaye li ko waral. waaye li ko waral. duñ la ko wax duñ la ko wax. waaw soo mun la wax. soo mun la wax. Cheikh Al Hadj. Cheikh Al Hadj. waaw. imaam la wax noonu. imaam la wax mu ni. man suñu munta wax. ah. waaw suñu munta wax. mais suñu munta wax. الشيخ الحاج عبد العزيز الشيخ الحاج عبد العزيز الامام عبد بو نيوخ عبد بو اه نيوم سن سن سن الحاج بو نيوم سن الحاج بو بوكو الحاج يي ديغي دي بوكو الحاج يي ديغي اوريجينال اوريجينال لا يوجد نعم لا يوجد gaal lañ dugg. gaal lañu dugg. alhamdulilah xawul tànki màkk. xam nga ni màkk googu. xam nga ni màkk googu. di wàcc gaal bi. di wàcc ci gaal bi. Cheikh Hadji Thierno Saïd Nourou Tall teeru la. mais Cheikh Hadji Thierno Saïd Nourou Tall teeru la. Cheikh Hadji Mouhamadou Mansour teeru la. Cheikh Hadji Mouhamadou Mansour teeru ko. bokkul ak màkk yii bokkul ak màkk yii nga xam ne mos. déedéet. ba mu wàccee ca gaal ga. mais ba mu wàccee ca gaal ga. dafa def direct. dafa def direct. ci sëñ Babacar si ci sëñ Babacar si. maam Abdou moo ne ma. mais moom Abdou moo ne ma. al mat naweti mat gii ngay dégg nii. mais al mat la nawee mat gii ngay dégg nii. sëñ Babacar si moo ko. sëñ Babacar si moo ko. man mii maa taxoon moo ko. mais man mii maa taxoon moo ko. maa doon wax loolu. waaw waaw. àll mat la nawet matt gi ngeen dégg. maa xam ne Abdoulaye àll mat nawet mat gi ngay dégg. ñi di ko wax. nit ñi di ko wax. tax ma man moom Abdou maa tax sëñ Babacar wax na lu tax. mais wax na may loolu tax. waaye mbooloo. waaye mbooloo. du ñu war a wax lépp. nekkul ni dañoo war a wax lépp. taaw yi dafa bari. ndax taaw yi dafa bari. nettali wax nettali wax bi daa bëri. mais interprétation yi dafa bëri nettali yeeg nettalaay dafa bëri. moo tax yu bëri. moo tax yu bëri. tey jëriñee. tey jëriñee. nëbb nañ ko. nëbb nañ ko duñ ko wax mukk. duñ ko ma di leen dénk nag. nee ma di leen dénk nag. di dénk sama bopp. nee di dénk sama bopp. ñu wattu wax ju bon. ñu wattu wax ju bon. kon xaw ma baaxul de. filme jàmbur. ne filme jàmbur. dem kole ko. dem kole ko. ci lu warul nekk. ci ci lu warul nekk. taayaan ko. am naa kilifa gu ma àndaloon. ne am na kilifa gu ma àndaloon. ñu dem aéroport. ne ñu dem aéroport. muy naan. muy naan. dafa toog ci table bi. mu toog ci table bi. beneen table nekk na le. xottu butéelu beer la. xottu butéel loo xam ne tubarkalla ma nga fa. beer beer beer ma nga fa xottu butéelu beer sangara. moo am ku ñëw ci moom. moo am ku ñëw ba ci kilifa bi. oustaz. oustaz yaa ngi dégg. lu am solo laay wax. nee lu am solo laay wax. ñu bokk toom nii. nee ñu bokk toom nii. benn butéelu sàngara def fële. bu nekk fële. am ku ñëw ci moom ne am ku ñëw ba ci moom kilifa gi ne ko. papa tee nga jóg fii nga toog tee nga jóg mun ko lu mun ko lu gis nga butéel bee. gis bee. mën nañ ko xëcc. mën nañ ko xëcc ci photo ba mu nekk sa kanam. mel ni yaa ko teg. dégg nga ne ma dimbali ma de doom. loolu la jógee. loolu la jógee nag. waaye nañu bàyyi xel yawmal qiyaam. waaye kon nañu bàyyi xel yawmal qiyaam. lépp lu waay def. lépp lu waay def. billaay di ko defar. billaay di ko defar. kon nag. mais kon nag. lu gàtt gàtt rek. lu gàtt gàtt rek. ñu wax leen loolu. ñu wax leen loolu. xam naa ne mi ngi fi sax. xam naa ne mi ngi fi sax. waaye. waaye. ku yàlla rawale. ku yàlla rawale. nga raw nga raw. yàlla nañu yàlla rawale. yàlla nañu yàlla rawale. jamono jooy dama de. mais jamono ji doy na lool. oustaz ne oustaz jamono ji jamono ji waxante lu ñaaw waxante lu ñaaw jëfante lu ñaaw jëflante lu ñaaw moo gën a yomb moo gën a yomb waxante lu rafet waxante lu rafet ak jëfante lu rafet ak jëflante lu rafet mën nañ ko lool te mën nañ ko lool fi mu gën a amee nag fi mu gën a amee nag mooy ñu bokk ndey ak bay mooy ñu bokk ndey ak bay ñooy teqaliko léegi ñooy teqaliko léegi dëgg la xam nga ni ma nee xam ngeen li ma wax. fii. nee fii. xarit xarit moo la gënal mbokk. moo la gënal mbokk. wax dëgg. wax dëgg. dañuy seet ñan lañ ko war a wax. dañuy seet ñan lañ ko war a wax. dëgg léegi. dëgg moom léegi. taalibe yi dong lañ koy wax. taalibe yi dong lañ koy wax. seetlu wax rek. nee nañ seetlu wax dëgg la. taalibe yi rek. taalibe yi rek waaye kilifa yi. waaye kilifa yi moom. tabarakallah. nee fa tabarakallah. wax neexatul daal. wax daal neexatul. ndax da ngay wax laabire. ndax da ngay wax laabire. ñu jël ko. ñu jël ko. def ko noo xam ne. def ko noo xam ne. jubluwoo ci woon lool. jubluwoo ci woon lool nag. sama Mansour nee na. sama Mansour nee na. وتنكيز عهد وتنكيز عهد دينا كفري لا إبراهيم دينا كفري وتنكيز عهد وتنكيز عهد والأمانة دأبهم والأمانة دأبهم وتأويل أقوال وتأويل أقوال تشق صدور تشق صدور الله لا لا